yàlla nee na la ko ko tax man mooy baatu jébbalu jébbal gu ma jébbal boppam moo tax ba mu ko cay tagg ca baat boobu rek la ko taggee maakaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana anifan musliman wa maakaana minal mushrikin kon baat boobu yi la nu bëggoon a fàttalante ak yéen ndax kat moo nu booleeg Serigne Touba te it moo nu bàyyi ci Serigne Touba ndax Serigne Abdoulaye Mbacké nee na koo xam ni soo ko jàppee ñu wooyee la am murit soo ko noppee jàpp dutuñu la wooye murit suñuy wax murit koo kee tax kon murit aw tur la jëmm lay woote mooy Serigne Touba kon jébbalu gi nu jébbal suñu bopp Serigne Touba moo nu tudd ay murit lanu taxaw wéy di tudd murit mooy des gin des di jébbal ko suñu bopp faw moo tax mu ni laakinamal muriidu suttanaa di isaa taxallaqa bi man yunaadi jébbalu googu nag suñ ko bëggoon a waxtaani ci beneen jotaay bu dul bii jotaay mën naa yaatu loolu te gudd ngir yi ci aju bari waaye jotaay bii daal laajut lu gudd looloo tax dañ koy tënk jéem ci génne yi nga xam ni bu doon am lu ciy ëpp njariñ moom lay doon doonte lépp njariñ la te neex a jàpp neex a jariñoo ñeenti tomb lañ ko bëgg a def tomb bu njëkk bi mooy ana lan mooy jébbalu tomb bu ñaareel bi mooy ana kan la jébbalu war tombub ñetteel bi mooy ana ci kan lan war a jébbalu tombub ñeenteel bi nag mooy ana lan mooy njariñi jébbalu lan moo ko tax a jóg ñeent tomb yooyu rek lañu bëgg a waxtaane tomb bu njëkk bi nag mu ne ana lan mooy jébbalu bi taq siirin boo ko doon tënk ci lu gàtt mooy joxe sa jëmmi bopp ba mu jeex takk nga dese ki nga jox sa bopp te yem ci moom joxe sa jëmmi bopp ba mu jeex takk nag mooy nit ku joxe jëmmam sa jëmm nag sa lépp a ngi ci kenn daa amul lu weesu sa jëmm ndax ci sa biir jëmm say bët ci la nekk kon la muy firi mooy amatoo ab xool amatoo ab gis lu dul gisub gisub ki nga jox sa bopp ak fam la xolloo ki sa biir jëmm ci la say nopp nekk kon loo cay dégg amatoo ab dégg amatoo ab diglu lu dul li nga xam ni ki nga jëbbal sa bopp moom la la digluloo ci sa biir bopp yit mu ci sa biir jëmm ku ne xam na ne ci la sam xel ne kon li muy firi amatoo ak tànn amatoo ay xalaat lu dul tànn ni ki nga jëbbal sa bopp ci yow ki sa biir jëmm kenn ku ne xam na ne ci la sab xol ne kon loo cay déggee mooy amatoo ak bëgg amatoo ak bañ lu dul bëgg-bëgg ki nga jëbbal sa bopp ak la muy bañ ci yow say yoxe ci la ne kon amatoo jàpp ak bàyyi lu dul lam la jàppaloo say tànk ci la nekk kon amatoo jéegu bu jëm ci lu dul fa moom kon loolu ci gàttal mooy jébbale sa bopp ba mu jeex takk di seetoo dara looloo tax Serigne Touba mi nga xam ne njàngaleem day gàtt te neex a xam tënkal na ko ci benn baat daane kenn daa amul lu dul sa bopp ku joxee noonu sa bopp na kon amatoo ku amatul nag nekkatoo kon da ngaa dee moo tax ku jébbale ku ne da mel ni mu néew ka nga jébbal sa bopp mel ni kay sangub néew kay sangub néew nag ci ab néew da koy wëlbatee nu ko soob. te la ca warut néew mooy topp ko ndem dee na wakun la da sayqi ka maytin wudiha bay na yaday xaasilihi tantafiha looloo tax néew moom du ñu bombal fii du ñu jëmale ma nii foo ko déggee rek déegaa des kon loolu ci gàttal mooy jëbalu mooy tom bu njëkk bi loolee nag ana kan la war alxuraan dafa wax ni wàccul kenn képp koo xam ne suñu borom sàkk na la ngay nit baa ngay jinne baa ngay malaayika baa ngay doomu aadama jébbalu war na la suñu borom bi mu ni ci jox misaal borom bis bii wala ki sabab bis bii ci la jaar misaal na misaal na ci ñi gën ci nit ñi mooy yonente yi na yàllaay joxe nga bi muy liim ñoom la jiital ulaika lasina anhamallahu alayhim minan nabiin te nabiin yooyu toll ci cent vingt quatre mille Seydina Ibrahima mi sabab ki mi ci la bokk ca biir nabiina ya ngëneel ya ba muy yokkaat mooy ña nga xam ne am na risaala di trois cent treize alxuraan ne unsur kayfa faddalnaa ba'da nabiyyiina alaa ba'din wa aataynaa daawuuda sabuura ca la bokkaat 313 yooyu ña gënaat mooy ñaar fukk ak juróom yi seen tur ñëw ci alxuraan ibrahima saar woo fekk fa waaye ña gënaat mooy ulal xasmi yàlla liimaale na ko min ko wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa Iisaa ibn Maryam yëmu ca waaye dafa bokkaat moom la yàlla taan def ko muy xaritam imaam wax na ko wattaxasallaahu ibrahima xalila yëmu ca waaye ca jooja jamono it mooy imaamu nit ñëpp maanaam moo toogal yàlla ci kaw suuf alxuraan wax ko na ko inni jaahiluka lil naasi imaaman bi mu boolee daraja yii yëpp ba noppi la ko yàlla ni lii lépp li muy baax baax taxul njëbbal wàcc la aslim jëbaleel sa bopp kon bu fekkoon am na ku tey rëcc ko war caa rëcc kon koo kookaa ca toll noona te ngëneel yu ni mel dajale ko yombul mu dajaloo ci moom suñu borom ne ko téewul njëbbal war la kon loolu doy na sëkk ci nga xam ni amul kum wàcc ak maqaama moo mën a yore na foofa àgg fa yombul loolu kon mooy ni ñëpp la war ñëpp kon ñu dugg suñ ñetteel tomb mooy bi ñu xamee luy njëbbal xam kan la war ana ci kan lan war a jëbbalu loolu nag mooy li doy waar suñu borom mi digle nu jëbbalu li alxuraan di yaatu yaatu yaatu musta du njëbbal jëmee ko ci kenn ku dul jëmi boppam kenn du jëbbalu ci ku dul yàlla diglu leen baax li may wax amul ci alxuraan fu yàlla diglee ku jëbbalu ci nit wa anibu ila rabbikum wa aslimoo lahu ngay fekk ca suuratu sumbur min qabli an yaatiyakum alxasaabu suma laa tunsaruun dellu si leen yéen jaam ñi ci seen borom yàllaay wax ndax foofa lañ bàyyi ko mooy suñ kesaan dellu si leen te ngeen jébbal ko seen bopp lu ko may mbugal dana leen dikkal te kenn du leen ci mën a dimbali kon saa yu tuddee yëpp bëgg ci boppam la ko jëmale kon ana lu ko andi ci nit xanaa loolu mat naa laaj ab question la léegi nag li ko andi ci nit suñ borom mi ko joxoñoon ci boppam moo ko andiwaat ci nit waaye ci kan nit ak nit kookee nan la demeek sunu borom ba dox suñu borom di ko joxoon ci boppam ba yàgg mu joxoon ko ci ko loolu question la boo xam ne jullit ñëpp ko war a laaj yàlla jullit ñëpp ko war a laajante ci seen biir moo tax sin bee wax ci mañ moox ni da wa amma sayxu tarbiyati daan ne qawluhu taala fi lqurani daliluhu wattabi sabila man anaaba ilayya daan ne sëriñ bu matub sëriñ la yàlla junj ci alxuraan naan topp leen koo kii di leen delluusi ci man jëmm jooji nag lu tax wuute wut ak yàlla rasulullah salaa salaam suñu borom rek a fi musa ne kenn nekku fi kudut yàlla tafaawu ma fii ne huwa al wa wal axiru wal daahiru wal baatinu wa huwa bi kulli shay'in alim lu aaya bi wax aaya bi mu wàccee dani la ma waxoon génn ma ci ndax topp nga logique bi yàlla dana woon jébbalu ci man rek bi gaa yi jaayantee ba noppi am na ñoo xam ne ci deret Ousmane lañ ko yemale ñii ca waxtaan wa déedéet sëñ Tuubaa nee na jébbalu googa loola sababu nu soo rek bopp te fas yéene liggéeyal yonent bi faaw inna la si na bàyyi hoon la gisin bi teg xat baa yoxal jalila keroog bi ñu jébbaloon yàlla dani la ma waxoon génn ma ci dama ni yéen ñi jébbalu ci kii tudd Muhammad jébbalu wu leen ci moom ci yàlla ngeen jébbalu te booba gars yi ci Muhammad lañ jébbalu de dana leen inna lasiina yu bàyyi xoona ka yéen ñi jaayanteeg moom mii innama la wax aadatul xasriya la ci grammaire imam aadatul xasriya bokkut ak innama suñ borom waxut nuage dani innama sa dëgg-dëgg yu bàyyi xoona laaha yàlla ngeen jébbalu aw ima am wa wala walakin suma boo ko dem firi ki tubaab fa mooy immédiatement xat sa dëgg-dëgg ataaxallaa booba nga jàpp yàlla bi nga jàppee ci moom rek moom wasila wi immédiatement jàpp nga yàlla loolu la alxuraan wax kon li am solo mooy dëggal sa taalibe waaye jàpp seen tubaab ci leen lépp ne tey ak ëllëg yaa ngi dégg loolu yenn la ci waaye ni ma ko tëjee mooy Serigne Sall nag defal na nu ci jàpp ki seen becco lool lépp loo xam ni xamoon nañ ko ci lu seen tubaab wax ni boo jàppee ci moom am ko danañ ko ci am waaye déggee nañ ki seen Sall nag loo xam ni ci sëñ Béthio la wax ne ku ko jàpp amaale ko ci waxun ne amutoon de ñun ci sëñ Saliou lan dégg mu wax ko te déggaatun fa neen wax day maandu yaa ngi dégg sëriñ Tuubaa dana sëñ Saliou woon ko tegal nii képp ku jàpp ki sëñ Béthio jële ci ngërëmul yàlla képp ku jébbali ci yow am ngërëmul yàlla sëñ Tuubaa dana jébbalu leen am àjjana ñu ànd ma wutal leen ngërëm saa ma soobee ma jox leen ko coobaree ma nag sëñ Saliou wuy sëñ Tuubaa daa amul tànk ginnaaw teyam kenn du man lu ëpp lu mooy feeñal feeñal na ci yow nag defal na ko noonu képp ku jëbale ci yow am ngërëmul yàlla loolu bénéfice la loolu lañ tudde bénéfice muy benn bokk na ca nee na jàpp ci yow mooy dëgg dëgg jàpp ci moom jàpp ki suñ tubaa gën waaye jàpp ca dëgg-dëgg jëm meneen mbir la yaa ngi defal na na ko jàpp gi jàpp ci yow nee na sëñ Béthio yow ak ñi nga àndal yii nañ ci sama biir nekk ci biir sëriñ bi nag meneen mbir la nee na yow ak ñi nga àndal maa ngi leen di bége ko sëriñ tubaa di bége mooma meneen mbir la waaye wax na it ni mbaa yàlla naa la yow mbaa yàlla naa koo bokk ndey ak baay dala caa tegal ne dootuma mbaa yàlla kenn ku àndul ak yow waaye ànd nag la wax dëggal ànd bi sim bi nee na ma jébbaloog ànd ñaari bokkul la waaye rek ci ànd ak yow lay defalee mbaa yàlla moom sëriñ bi dolli leen ci képp ku ànd ak yow ku ne sëñ beccu sëñ Saliou nee na ko nangul na ko jëf ya wees nangul ko jëf yi mu toll nangul ko jëf ya dikkagul loolu ci ànd ak yow lees koy amee kenn ku ne da ngay jëf di ñaan ñu nangul la ko